bu àgg fépp foo xam ne moom lañu bëgg mu àgg di nuyu Sénégal yépp di leen ziyaara di leen yëgal tafsir alquran bi nga xam ne mi ngi koy doon baaxoo di def ci weeru koor fii ci jumaay Hann Capa te seen mbokk seen xarit imaam Umar jàll moo ko ko doon taxawee incha allah fas nañ ko yéene def ci weeru koor gi ànd ko ak Hann TV incha allahu à partir de 13 heures ñu ngi jox ñëpp rendez-vous ci tafsir googulee dinañ ko def fii ci jumaa ji ci Ancapa li ko waral mooy ren defa tombeek coronavirus boo xam ne dañoo tëj jàkk yi te jumaa yi naafila yi dana doy waar loolu moo waral xam naa ne daje bi du mën a am comme ni jàkk yi doon feesee ñuy def ay tafsir ay naafila waaye fas nañu yéene ànd ak Hann TV mu wuutu leen ci teew bi ngeen doon teew ci jumaa yi Hann TV wuutu leen teewal leen ci jàkk yi kon ñu ngi ñaan subhaanahu wa taala yàlla nañu yàlla teggil feebar bi bi jaay sayyidul wujuud sallallahu alayhi wa sallam eh, su ko defee ah itam directive yi nga xam ne mu ngi jóge ci ministère de la santé ak ñi nga xam ne ñoom ñooy saytu suñu wér ñu toppatoo ko sol masque yi rester ci biir kër yi di raxasu di def niñ ko santane fa tabarakallah ñu ñaan su borom bi subhanahu wa taala ñi nga xamne ne dañoo feebar yàlla na leen yàlla wéral ñi nga xamee ne feebaragul yàlla na leen yàlla musal ñu ngi wax allahumma inna nauzu bika min al barasi wal junuuni wal juzami wa min sayyi al asqaam assalaamu wa rahmatullahi wa barakatuh